internet du Sénégal ñu waxtaan entre euh, jigéen euh, ñu waxtaanee 8 mars nga xam ne léegi mu ñëw euh, yow nekk nga benn femme boo xam ne modèle nga Sénégal ñu bari dañ lay roy ci ndombal tànk yi nga jot am fii tey su ma la doon wax 8 mars 2022 nan nga gisee taxawaayu jigéen ci at bi waaw damay sargal sama mbokk jigéen ñi ba noppi wax ne jigéenu Sénégal ay jàmbaar lañu Euh, te yàgg na doon jàmbaar ndax bu ñuy wax talaay talaatay ndeer di fàttaliku jëmbat mbooj euh, ak magam jooju euh, rakam ndate yàlla ñi nga xam ne temps colonisation dañu amoon taxawaay woo xam ne wii bu nu ràññee la contre la colonisation bu nu fàttalikoo aussi Aline Sitoé Diatta ak femmes yi nga xam ne ñoo fi jaar ñoom ñëpp vraiment jigéenu Sénégal mosuñoo yaafus euh, kon il faut aussi ñu gën leen a jàppale gën leen a jàppale euh, président de la république Macky Sall def na ci nag lu lu bare bare bare euh, ci wàllu jox leen responsabilité man mi ci laa bokk mos naa doon premier ministre mu nommé fi aussi def naa loolu lu am solo la duñ koy duñ koy faral di wax waaye def naa ne guleet mu am mu am Afrique mooy nga jël lu toll ni police nationale jox ko ab soxna Euh, kon moom vraiment def naa ne wóolu na jigéen ñi bu baax a baax euh, il faut aussi euh, vraiment li nga xam ne moom la nuy wut ci wàllu dooleel jigéen góor ñi dugal ci seen loxo kon man damay def appel surtout aussi góor ñi ñu xam ne bu ñu jàppalee jigéen ñi ñoom it seen intérêt la seen bénéfice la boo jàppalee sa doom bu jigéen ba mu jàng ba réussir doon cadre ëllëg ak si biir aussi da lay jàppale da nga ciy am fierté sax en tant que père te gis nañu ne nag ci wàllu woowu ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax Euh, borom kër yi aussi ñuy jàppale seen i soxna ñu mën a def seen carrière euh, voilà mën leen a muñal aussi loolu it am na ci solo euh, waaye loolu it sax souvent ràññee nañ ci góoru Sénégal ndax dama yàgg di voyager biir Afrique góoru Sénégal aussi xame nañ ko ci ci ci laabiir ci digganteem ak soxnaam digganteem ak doomam bu jigéen digganteem bi ak yaayam surtout waaye nag aussi am na ci ay jafe-jafe yoo xam ne yi Euh, war nañ ci gën a góorgóorlu par exemple les violences faites aux femmes jigéen ñi nga xam ne vraiment dóor yi wala rey yi parce que am na fi am na fi euh, yooyu it aussi defe naa ne état bi jël na ci ay mesures yu am solo président de la république dem na ba voilà criminaliser lépp luy viol ak yu ni mel euh, pour gën a protéger jigéen ñi waaw loolu it dañ ci war a di continuer di liggéey loolu it am na solo waaye bu ñu nee 8 mars dañuy jàpp rek jigéen ni waaye am na xale yu jigéen ñi aussi les filles et les jeunes filles waaw bu ñu leen di fàtte ci mbir mi parce que ñoom aussi boo jëlee réew mu mel ni Sénégal 70 pour cent de la population am moins de cinq ans genn wàll gi ay jigéen lañu ñoom it dañu am seen ay soxla spéciale yoo xam ne yi vraiment war nañ leen ci jàppale moo xam formation la moo xam aussi crédit parce que souvent bu ñuy wax jàppale accès au crédit dañuy xalaat jigéen ñi nga xam ne ay adultes lañ mais jeune femmes yi aussi ñoo xam ñi nga xam ne ay couturières lañu coiffeuses euh, ñi nga xam ne dañ nekk yor seen i entreprise ñooñit aussi war nañ leen di bàyyi xel euh, ne ay jeunes dames lañ ay jeunes filles lañu. Euh, voilà ak yu ni mm-hmm. mais souvent jigéen ñu mag ñi rek la ñuy la ñuy xalaat ñoom it ñu wax duñ leen duñ leen duñ leen bàyyi xel suffisamment war nañ leen jàppale ñoom it ñu organiser wu. Euh, surtout ci wàllu formation aussi euh, ñu jox leen formation boo xam ne ëllëg ak si biir euh, bu ñu nekkee aussi ci seen néegu sëy dinañ mën a aussi jàppale seen borom kër jàppale seen bopp parce que na fekk aussi ñu am formation pour ñoo xam ut liggéey wala am seen i seen i activité bopp loolu it am na ci am na ci solo muy renforcement vraiment seen capacité des femmes et des jeunes filles loolu it am na solo Euh, am na ci euh, aussi yeneen i problème yoo xam ne yi war nañ koo xool bu baax mooy accès à la terre mooy maanaam euh, suuf si booy xool yoonu aada la ñuy doxal voilà foog nag ñu sédd ci jigéen ñi ko defee jigéen ñi aussi mën a yor seeni toolu bopp voilà kon ñu ngi wax aussi chef de village yi nga xam ne ñoo yoree yu ni mel voilà ak maire yi ah bu ñuy dagg suuf si aussi ñu bàyyi xel jigéen ñi bu baax a baax a baax Euh, bu ko defee euh, ñoom it euh, ñu mën a aussi am ay jumtuwaay yoo xam ne yi ci nañuy liggéey ci wàllu agriculture. loolu daal mooy yi nga xam ne yi ci wàllu 8 mars bi bëgg nañ koo wax ginnaaw bi ñu sargalee soxna yi ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi voilà ñooñu aussi ci 8 mars bi daal. bëgg naa aussi ñu jox leen ci seen gëdd bu baax a baax a baax les les les fii filles ak les jeunes fii Euh, booy seet nag ñoo ëpp ci soxna yi voilà ñoom it war nañ leen otal programme spéciaux euh, yoo xam ne parce que dañuy wax les jeunes rek mais ci biir yi ñi ci ëpp ay jigéen lañu. voilà il faut ñu seen formation professionnelle aussi ñu bàyyi ci xel euh, voilà jox leen aussi ay ay ay ay ay ay jumtuwaay yoo xam ne yi dinañu ci mën a épanouir ñoom maa ngi gis sànq di def recherche at at bi l'avenir est féministe euh, thème boobu nan nga ko gisee jigéen féministe yi surtout ñu ngi jël euh, benn part de responsabilité si bari di défendre jigéen ñu bari ci seen i problème comme ni nga wax ne violence conjugale ak yooyu noonu. Hmm. nan nga gisee thème bu ñu retenir at bi pour. Euh, waaw bi ni ma ko gisee mooy am na solo je pense que affaire avenir réew. mënoo ce waxtaan te waxtaanoo ci ni ci jigéen ñi dugale seen loxo defe naa da nga koy jàpp rek ci sa kër kër gi nga ne euh, voilà bu jigéen ñi dugalal dugul seen loxo euh, pour mu sotti du du yomb voilà donc euh, jàpp nañu ne jigéen ñi bu ñu leen jàngalee aar leen jox leen jumtuwaay yi vraiment suñu réew yi dinañ gën a mën a jëm kanam parce que cinquante 51 pour cent population bi ay jigéen lañ boo jëlee téeméeru sénégalais juróom fukki yeeg benn ay jigéen lañ te xam nañu ne réew yi dañuy jogante waaw bu fekkee ne yow nag jàppal ne da nga war a course eh, kii yor ñaari tànkam yow nga jël sa benn tànk dal di ko yeew xam nga ko yor ñaari tànkam a lay raw kon ñun nañu yeewi jigéen ñi aussi bu baax jàppale leen eh, bu ko góor ñi gis comme voilà concurrence wala yu mel noonu au contraire ñoom la ñuy séntu pour que ñu dugal seen loxo ci jàppale seen i soxna seen i doom yu jigéen eh, voilà seen i yaay sax du am problème parce que góor ak yaay moom ñëpp xam nañ ni mu demee Euh, waaye ni ma ko waxee en tout cas sénégalais yi seen laabiir ci wàllu woowu euh, voilà daanaka Afrique yëpp euh, ràññee nañu ko waaye ñu gën a góorlu rek gën a góorgóorlu doon ñoom tamit des champions de la cause des femmes voilà góor ñi nañu dugal seen loxo ci jàppale jigéen ñi parce que li ma ko waxee sa kër bu fekkee ne soxna si voilà am na lu loo xam ne lii mu ngi ciy jàpp voilà njëriñu njaboot gi lay doon njëriñu kër gi lay doon Euh, noonu it lañu ko lañu ko lañu ko gisee. mu mel ni feeñ na sax ci euh, élection yi parité bi jigéen lañuy fu góor taxaw jigéen taxaw na fa lan nga gisee lool ci euh, ci élection yi tamit jox nañ ci jigéen ñu bu baax seen seen. waaw waaw mais mais mais des na nag. parce que voilà def naa ne li ëpp ci maire yi ay góor lañu. Oh, voilà des na des na des na il faut que jigéen ñi aussi gën a ñeme. parce que loolu la aussi foog jigéen ñi gën a ñeme politique yombul. voilà euh, foog ñu gën a ñeme voilà gën a engagé wu euh, bu ko defee voilà nombre bi gën a yokk parce que jàpp naa ni jigéen nag mën naa gérer voilà ndax koy jox dépense ñëpp xam nañ ne benn dépense matut voilà mu fexe nag ba def ci voilà lim ci war a def ah boo ko dénkee responsabilité jàpp naa ne bu ci àndeek responsabilité boobu euh, résultat mën naa feeñ e donc ñu maa ngi leen di encouragé ñoom it ñu gën a dugg ci politique bi gën ko ñeme voilà am nuñ koy defee nag voilà jiital ci fula jiital ci fayda ak yar euh, ak teggin parce que ñoom ñooy yar xale yi voilà euh, bu ko defee ñu am aussi seen taxawaay ci ci seen politique bi euh, ginnaaw bi ma rafetloo loi sur la parité bi nga xam ne am na xëy na revendication bi nga xam ne moom laay yëkkati parce que 8 mars nag aussi plateforme revendicative bu ñu jox autorité yi la mooy parité bi nga xam ne am nañu ko ci Euh, instance élective yi nañu ko indi aussi ci instance de nomination yi mhm. président de la république nommé plus de jigéen moo xam ci gouvernement bi moo xam ci euh, voilà comme directrice générale yi président conseil d'administration yi mhm. ñu ngi koy ñaan aussi voilà mu indi ci parité boobu euh, parce que jigéen ñi mën am responsabilité yi ñoom it ñu ngi fi kooku daal mooy suñu mooy suñu revendication ci 8 mars mooy que la parité soit intégrale mhm. pas seulement parité ci instance Euh, électives yi mais aussi ci instance nominative yi. ban jigéen la ñu mën a roy tey soo xoolee jigéen de mën a roy bari nañ wax naa la sànq jëmbat ak ak ak ak ndate ñooñu doo defoon déclaration de guerre Faidherbe ku mel ni ndate yàlla def ko bind lettre boo demee ci archive Saint-Louis ña nga fa ne ko may naa la balaa jant soo sa troupe yi nañu génn ci sama ci sama tund wi Ah, bañ ko defulee it dafa attaqué ay ay ay ay ay ay troubu euh, Faidherbe bien sûr gañewul mais euh, wane na taxawaayu jigéen ah ñu ngi jóge poroxaan bu yàggul ku mel ni maam jaaro Buso aussi royukaay le ci wàllu ci wàllu religion am na am na waxtaan wu ma demoon tugal euh, ndax ñoom ni ñu gisee jigéenu Afrique mooy jigéen ñi dañ leen a noot di leen metital man leen booba da ngeen xamul xëy na li xew Euh, surtout ci religion ñun am nañu am nañu bés boo xam ne voilà fu ne la nit jóge euh, pour màggal ab jigéen Sénégal muy soxna maam Jaara Bousso wala nga jël ni ma ko waxee ku meloon ni Aline Sitoé jaata moom it doon xeex colonisation teg def naa ne du woon du woon du woon mag amuloon sax téeméeri at amul sax 30 ans fanweeri at euh, kon jigéen ñi nga xam ne mën nañ leen a roy bëri nañu amut góor boo xam ne bii ci Sénégal Euh, xamul jigéen joo xam ne bu dul woon moom du àgg fa mu am moo xam sa yaay lay doon li ci ëpp sax sa yaay lay doon waaw wala yenn saay mu doon sa ab mag bu fi sa yaay newul wala mu doon sa borom sa soxna ca kër ga voilà kon nag euh, jigéen moom taxawaayam euh, kenn naataable wu ko kon nañ ko jox cëram nañ ko gën a jox cëram loolu it am na solo mu ñuy def budget ñu xool li nga xam ne moom la moo war a jëm ci programme bu jigéen ñi ministère de la femme ñu gën koo dooleel ci wàllu ci wàllu moyen ndax seen ñu gën a mën a intervenir voilà nomination yi ni ma ko waxee jigéen ñi aussi voilà ñu jox leen parité parce que mën nañu jàng nañu euh, école de médecine ren euh, ñi diplômé jigéen ñee ci ëpp entrée en sixième ren daaw même chose la woon jigéen ñi ñoo ëppoon góor ñi waaw kon nag nañ leen delloo nañ leen delloo seen cër aussi góor ñi di wax boog góor ñi li ñuy wax naan jigéen boo ko dénkee dara da koy da koy day pouvoir attanu ko jigéen attanu pouvoir. non non loolu loolu moom xam nañu ne. jigéen ah dañuy wax. déedéet déedéet loolu dañ leen di dañ leen di wax rek pour parce que amuñu argument. Ah. <laughs> non non non waxuñu loolu waxuñu parce que ñoom gis nañu ko. gis nañu ci àddina bi yëpp euh, jigéen ñu am taxawaay macha allah ak ak ak fu ne. Euh, ñi ma lim noonu soxna yi ma lim noonu fii la jëlewu ma leen bitim réew jëlewu ma leen feneen euh, te mbir mi sax affaire du affaire góor wala jigéen. affaire wu taxawaay la toujours dama koy wax mbir mi du góor wala jigéen gis nañ góor gu amul taxawaay gis jigéen ju am taxawaay gis nañ jigéen ju amul taxawaay gis góor gu am taxawaay du affaire wu mag sax wala xale mbir mi mbiru mbiru mbiru mbiru personnalité mbiru voilà euh, taxawaay góor mën na koo am jigéen mën na koo am kon jigéen ñi nañu ñeme nañu ñeme mbir mi mbir mi ñeme la yombul nag yombul voilà yombul mais man jàpp naa ne am nañu benn avantage bu góor ñi amul mhm, mooy jigéen bu nekkee xale ba ba muy mag toujours société bi euh, foog mu naxanteeg société bi pour mën a xam am fa mu yegg góor ñi nag moom société bi da leen a ubbil yoon wi voilà kon kon kon jigéen ñi aussi boo teelee nekk xale rek xam nga ne foog nga utiliser sa xel pour mën a yegg fa nga bëgg a jëm waaw ñoo kon bu ñu ñemee gouvernement aussi gën leen a jàppale euh, incha allah dinañ mën a sori te loolu intérêt réew mi la intérêt njaboot gi la intére réew mi la moom laa jàpp góor ñi aussi gisee ko noonu du rek jóg leen ñu toog déedéet ñun ñëpp ñooy àndandoo tabax suñu réew parce que ni ma ko waxee réew yi dañuy rawante waaw yow boo ñëwee jël sa benn tànk muy jigéen ñi nga yeew voilà kee libéré ay jigéenam formé leen formé ay góoram formé ay ndawam moo lay raw donc loolu it nañ ci nañ ci bàyyi xel te defe naa ne aussi bu ñu xoolee diine ji euh, li ñu ciy jàngat euh, ci diine l'islam defe naa ne euh, vraiment ci wàllu jàng wala ci wàllu responsabilité ak yu ni mel Euh, vraiment euh, encouragé nañu aussi euh, ku ne jàng voilà muy góor wala muy jigéen kon loolu it du gàllankoor au contraire def naa ne encouragement la bu bu baax a baax a baax. d'accord ñu ñëw ci yow en tant que jigéen ndombal tànk yi nga jot a am yépp tey ban secret la fan nga jaar lan nga def. ba tey en tant que jigéen tey bu ñuy lim Sénégal xam nañ la ñëpp xam nañ la si si sa liggéey li nga fi nga jaar yëpp loo fa def nit ñi xam nañ ko lan nga mën a wax jigéen bu bëgg mel ni comme Aminata Touré. góorgóorlu ak ak ak ak yàlla yàlla aussi day bokk ci équation bi ndax mooy indi opportunité ak yu mel noonu euh, waaye engagement la engagement la ak gëm sa bopp am solo moo tax bu ma naan ñeme loolu laay wax ñeme xam ne yoon wi nag dafa bëri xaaxaam. waaye da ngay ñeme xaaxaam yi dangay ngay ñeme xaaxaam yi di ko moytu nag aussi noo ko mën a moytoo rek <laughs> moytu ko waaye yenn saa yi nag foog nga xuus euh, xuus jàll ni xale yi wax euh, voilà jàng aussi xam-xam day baax ci mbir mi wala euh, ak aussi joxe cër am solo voilà joxe cër ndax koo jox cër rek mu delloo la ko mën a collaborer nit ñi mën a waxtaan ak nit ñi voilà ak ak ak ak noonu la waaye ku ne mën nga ko c'est à la portée de tout le monde euh, ki nga xam ne ci ci ñaw la ko yàlla xiir mu def ci jomam dafa am solo ndax man dama jàpp ne boo sérieuxee ci mbir rek yàlla jàppale la ci man loolu laa gëm loolu laa boo sérieuxee ci mbir rek mooy ci jàng muy ci jàng métier euh, muy ci même politique wala fu munti doon euh, boo ci defee sa jom rek yàlla jàppale la ci nangu nag aussi lu metti ndax du yomb voilà loolu it xale yi dégg ko dafa am solo yëf yi rek xëyul sotti déedéet euh, yenn saa yi aussi nga jéem du dox doo découragé nga wutaat beneen yoon bu bunt bi tëjoo nga jéem palanteer le voilà ba avancé def ci sa fulla def ci sa fayda ak ak jub aussi jub daf ci am solo parce boo jubee nit ñi def la confiance voilà loolu it dafa am dafa am solo noonu daal laa ko gisee daal laa ko gisee di encouragé vraiment toutes les femmes euh, ak domaine bi ñu nekk sa amul amul amul importance domaine bi nga xam ne moom nga jàpp ne foofu la la yàlla xiir wala lool nga bëgg euh, vraiment def ci sa fulla ak sa fayda yaa xam artiste nga xam da ngay ñaw yaa xam voilà cultivateur nga xam politicien nga wala cadre nga ci entreprise voilà def ci rek sa sa fulla ak sa fayda ak sa jom voilà ak ñeme nag voilà ak jub voilà ak toujours di jàng toujours di améliorer sa ay connaissance daf ci am solo. Mm-hmm. am na ñoo xam ne jànguñu am ñoo xam ne xamuñu école mais tey femme au foyer lañ te ñu ngi yar seen doom toog seen kër ñooñu ban message nga leen mën a lancer en tant que jigéen ñu toog déggal seen boroom kër toog seen sëy amuñ benn activité. waaw dama leen di encourager ñu am activité nag. Mm-hmm. dama leen ciy encourager. Mm-hmm. voilà am activité dafa baax voilà euh, am activité euh, parce que activité bëri na yoo mën a def même boo nekkee sa kër. yaa xam da ngay jaay sa beñe yaa xam euh, voilà da ngay ñaw di jaay voilà euh, jigéen day yëngu nga la am solo pour man jigéen de war a yëngu war a am ay activité am euh, dama leen ci encouragé aussi ndax àddina nag xamoo na muy tëddee xamoo àddina nu muy tëddee toujours aussi di indi di contribuer ci sa kër dafa am solo ndax wala sa borom kër mën naa xëy liggéeyam taxaw voilà bu boobaa yow bu fekkee ne yaa ngi yëngu di nga mën a ñëw en appoint loolu it am na solo jigéen ñi nañ ciy bàyyi xel voilà euh, loolu it dafa am solo boo buggee aussi voilà di participer ci décision bi ah foog ngay indi aussi sa contribution waaw ah, loolu it dafa am solo jigéen ñi xam ko euh, man d'accord wu ma ñu naan waaw may góor gee ma war a yor rek moom moom lépp moom déedéet bu fekkee ne nag yow da ngaa bëgg a am baat aussi da ngay contribuer loolu it def naa ne il faut ñu koy wax xale yu jigéen ñi ñuy ñëw di contribuer parce que àddina ni mu tëddee sax ak ni mu méttee benn loxo mënatul lépp léegi ñaari loxo ñooy takk gaño ñaari loxo ñooy takk sër kon nañuy jàppale aussi seen borom kër yi voilà dem daan seen doole voilà ni ko jigéen ñi Sénégal defee sax boo yeewoo trois quatre heures du matin euh, car rapide yëpp ay ay soxnaa ciy nekk yor seen seen seen seen seen seen siwo ñii ngi jëm tefes ga voilà di jëndi jën ñaa nga jëndi voilà ñaa nga jëm mhm. jëndi castor légumes yoo xam ne dañ koy jaayaat voilà eh, ñi ngi taxaw ci arekaar yi war a dem ci bureau yi ak nangam na jigéen ñi daal ñu ngi ñu ngi góorgóorlu eh, waaye jigéen moomul toog na jigéen di wax déedéet nay yëngu nay yëngu nay yëngu voilà alors jigéen euh, liggéey ak foyer tey mu bu ñu bëri dañuy liggéey en même temps gérer seen foyer euh, ban message nga wax góor bi war a yombalal jigéen boobu noonu di liggéey en même temps di gérer waare kër gi. ah yombul nag yombul yombul moo moo tax ci waxtaan wi yëpp toujours dama ciy boole góor ni euh, pour ñu laabiir parce que euh, boo buggee aussi sa kër sa kër neex da ngay aussi sa soxna ndax bu wàccee ca bureau ba bu ñëwee aussi voilà noo noo ko ci mën noo ko ko mën a la yombale rek. Euh, defee ko ko parce que loolu it mooy wane voilà mooy wala mbëggeel aussi mooy jàppale si jàppale si soxna 8 euh, mars bi aussi seen seen fête la ñoom góor ñi waaw parce que ñun mënuñoo dem sans ñoom waaye ñoom it xam nañ ne mënuñoo dem saa ñun kon ñoom collaboration boobu ñu ñu ñu ñu wéer ko rek ci ci laa biir ci générosité incha allah te nag aussi loolu bàkk nañ ci góoru Sénégal quand parce que man yàlla def na ma dund ci ay pays africains Euh, góoru Sénégal souvent dañ naan góor ñu laa biir lañu. voilà góor ñu ñeme dépense waaye na leen jigéen ñi jàppale aussi ci mbir yi. loolu it am na solo lool lool lool lool. parce que addina ni mu tëddee léegi il faut que voilà buñ ne góor baax na jigéen baax na ah mooy góor dana indi waaye jigéen aussi nay indi. Mhm. voilà euh, ak nu mu toll rek ak nu mu toll rek euh, bu ko defee voilà kër gi gën a naat. Mhm. alors ñu jàll si jigéen cinq sañse jigéen bëgg lu rafet. bëgg mm. cuuraay bëgg femme sénégalaise surtout bu ñu ci jëlee première dame par exemple dañ ko bëggee ci dafa dafa dafa saf dañ ko dafa saf sénégalaise dafa dafa ouverte en tant que sénégalais lañ ko gisee loolu ci jigéen bëgg lu rafet bëgg lu taaru fu mu génn nit ñi. Mm. waaw mais noonu la noonu la ah, jigéen moom foog ñu xam foog ñu foog mu def yëfu jigéen. Mm-hmm. Euh, ça c'est important euh, waaye nag aussi wax toujours ne. Euh, war ngaa mën a def lu lu lu rafet te du la lor aussi loolu aussi c'est important euh, di def loo xam ne lii vraiment euh, dina dina dina yànje dina rafet mais du la lor parce que nag aussi boo demee di wut lu rafet a rafet a rafet ba bor yi jiital la mënoo leen a fay wala ñu lay àkk si ca kër ga ak ñu mel noonu aussi yu jar a bàyyi xel la yooyu yu jara jara jara bàyyi xel la aussi voilà tout le toujours rek ñuy def loo xam ne lii suñu suñu yaay yeeg bu njëkk ba ah macha allah ñoom ah, dañ daan yànj ba de mhm. voilà te newuñ woon ci yu cher cher yi parce que man yenn saa ma dégg cheveux quatre cent mille trois cent mille <laughs> kooku salaire u cadre la. Mhm. waaw rafet na lool nag waaye nag est-ce que. ak voilà ah. <laughs> iPhone yu cher voilà ak yu mel noonu. Mhm. yooyu moom vraiment euh, aussi ñu ciy bàyyi xel di def loo xam ne lii aussi du lor njaboot gi du sonal njaboot gi. Euh, di utiliser suñu suñu produits locaux yi wax nga waxu cuuraay ak ñu ni mel loolu suñu culture la voilà ak xëy na bon di utiliser suñuy suñuy suñuy suñuy produits locaux euh, bu ko defee dina rafet euh, dinañ ko apprécier borom kër gi dina kontaan waaye nag du lor kenn voilà ndax bëgg sañ sañse bëgg a sañse ba bor yi topp la ba mu mujjee foo xam ne fii daal sa sutura day xaweeku yooyu it ñu moytandiku ñu moytandiku Euh, yëf yi mën naa voilà te sénégalais yi sax xame nañ leen loolu dangay gis koo xam ne xëy na légoosam rek lay yor waaye dana ko ñaw ba mu rafet ba vraiment parce que am nañu am nañu touche boobu euh, loolu it euh, am na ci am na ci solo mhm. première dame nan nga ko gisee en tant que jigéen sénégalaise nit ñi tamit appréciation yu ñu am ci moom waaw mooy mooy première dame mooy ni nga ko waxee rek sénégalaise la voilà muy def yëfu sénégalaise mhm. Euh, voilà na ñëpp def yëfu sénégalais aussi mhm. pas seulement les femmes maa ngi sax góor ñi léegi parce que bàyyi nañu daanaka costume boo xoolee ñu ngi sol seen nañ tuddee seen demi saison yeeg yu mu ni mel euh, voilà euh, ñu dellu rek suñu cosaan aussi dafa am solo mhm. loolu it aussi xëy na lu ñuy war a waxtaane la def la promotion suñu cosaan gis naa ne létt a ngi bugg ñu ngi bugg a bàyyi létt <laughs> te alors létt lu rafet la woon waaw waaw mais bon war nañ ko xool mais létt bi moo tane moo tane moo tane moo tane cheveux trois cent mille bi voilà ñu boolee ñaar ñi ak yu noonu daal euh, mais euh, sénégalaise moom dañ ko mës a xam ci ci élégance ak yu ne mel euh, mais nañ def loo xam ne aussi du ñu gaañ loo xam ne attan nañ ko loolu it am na am na solo lool waaw est-ce que mën nga togg est-ce que yaa ngi togg instant yi <laughs> man sa ay moroom may toggal ah, waaw dama am ay goro am mm. ay am ay ay ñees. Mhm. Euh, voilà am naa am naa ñu ma togg envie dugg si waañ bi. non de am am am bari naa bari naa ñu ma toggal léegi. loolu passé nañu passé nañu période boobu. voilà bañ mais bien sûr. mais mhm. dem ba am ay voilà am ay goro kii et cetera. Eh, léegi nag dañuy dañuy xaar ñu yekk bu ñu ñëwee nag ñu. voilà ñu ñu apprécier mais ku bëggoon togg laa nag à l'époque ça c'est sûr ku ko bëggoon la. lan ngay gën a bëgg a def activité boo gën a bëgg a def boo xam ne jigéen da nga koy bëgg a def daal en tant que jigéen. waaw waaw bon mooy activité yëpp rek parce que aussi ay. dem salon ce que da ngay dem di def. pédicure manicure <laughs> ah ay activité privée la bien sûr yooyu yëpp kay yàlla <laughs> tout ça c'est des activités privées. Mhm. mais góor ñi sax léegi ñu ngi dem salon. Ah, voilà est-ce que gënuñu fa bari jigéen ñi sax ñoom it. <laughs> ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci activité yooyu. Mhm. Euh, voilà mais souvent temps bi aussi moo ko dul moo ko dul maye mais li ñuy gën a bëgg aussi mooy. am temps wu toog ak njaboot gi xarit yi voilà euh, ak yu ni mel apprécier apprécier le temps ensemble tout mhm. simplement waaye it lu am solo la di ko wax aussi soxna yi ak borom kër yi ñuy jël am temps mën a toog ak seen njaboot waxtaan ak seen njaboot mhm. euh, ndax àddina xat na xat goo xam ne gii euh, xëy na li ñuy toog di waxtaan ak xale yi sax amatu ci jot boobu te lu ama am solo la mhm. ndax boo bëggee ñu xam seen cosaan xam seen valeur ak yu mel noonu il faut pas rek ñu taal télé bi teg leen bàyyi leen foofu wala jox leen jeu yi ñuy jouer ak téléphone yeeg yooyu déedéet foog ñu am temps bu ñu leen consacré euh, loolu it am na solo. Mhm. waaw gis takkaay yi rafet na ak yooyu noonu est-ce que or bokk na sa yow <laughs> def loo xam ne du ñu gaañ. c'est <laughs> toujours ah oui bien sûr ku ne jigéen ñi kay bëgg nañu yu yànj ak yu ni mel comme toutes les femmes mais ñuy def rek loo xam ne lii bon du du lu ñuy gaañ voilà du lu ñuy gaañ eh, yëf yi mën naa yem te rafet voilà noonu laa koy noonu laa koy mën a waxee eh, ndax ñëpp bokkuñu pouvoir d'achat waaw xëy na am na koo xam ne kii mën naa voilà yor boyet boo xam ne boyet bu yaatu la eh, am na koo xam ne kii xëy na moyen am bëriwul waaye mën naa def aussi ba mu rafet voilà noonu lañ ko war a mën a jàppe eh, voilà d'accord sa dernier maa ngi leen di sargal ñoom ñëpp ndax vraiment ay ay ay jàmbaar lañu eh, di leen encourager ñu gën a ñeme mooy li ma doon wax eh, voilà ci seen secteur yi ne ñu gën a gën a góorgóorlu lu ñu di ñaan lu ñu amoon ren yàlla ful ko ñu am lu ko ëpp 8 mars bi di ñëw jeune yi aussi voilà ñu gëm seen gëm seen bopp voilà jàpp ne mën nañu mën nañoo yor seen bopp aussi donte di nga am borom kër wala bëgg nga am borom kër waaye jéem a voilà mën a compter ci sa bopp loolu dafa am solo ñi nga xam ne dañuy jàng aussi ñu góorgóorlu ci. Euh, te macha allah ni ma ko waxee sànq ci secteur u éducation jigéen ñaa ngi ci am ay résultats yu baax euh, di ñaan ñu fekkeewaat ko ñun ñëpp 8 euh, mars prochain incha allah 2023. incha allah merci beaucoup